waa Saliou comme ni ma leen ko waxee woon macha allah ba tey ñu ngi fii ci Pikine buy diis si fii sama mag sama macha allah artiste bu mag bi ndax ne woon naa leen boo leen boo leen déggee Aïcha Thiam rek xam ni doomu Pikine la te tamit euh, weeru koor jot même bu dul weeru koor mu taxawal benn mouvement boo xam ni dañ koy wax mouvement si la bokk comme ni ma leen ko waxee woon sànq mu nekk mouvement boo xam ni Aïcha moo ci nekk présidente bi ñoom nag dañuy œuvrer ci li nga xamante ni si mooy social moom mënoon nañ nii teel na teelu duñ ci dugg waaye koor gi dafa ñëw moom ak waa mouvement ci laa bokk ñu taxawal li nga xam ne mooy ndogu euh, tungu na nag di teew ñuy nataal dama koy daal di jox kàddu gi mag sama nuy naa la. <laughs> maa ngi lay fay rek ndaw maa ngi lay fay bu baax baax. Mm-hmm. waaw en fait euh, mouvement bi. 100 pour cent social moo ko tax jóg. Mm-hmm. waaw léegi ñu ne woon dañuy jàpp ñi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw. Mm-hmm. ñu taxawu leen bu baax. ñu ne woon dañuy dugg ci biir hôpitaux yi nga xam ne dañu yor ordonnance seen loxo jotu seen ginnaaw pour ñu fay ko dañ leen bëggoon jël en charge gis nañ ne xale yi dañu teel a bàyyi jàng ba pare dañuy taxawaalu mouvement bi dañ leen bëggoon a jël en charge gis nañ tamit ne problème loyer léegi dafa am Sénégal te bari na trop léegi mouvement bi ñu ne kon bu ñu demee ba nga xam ne huissier da leen di génne dañ leen bëgg a jël en

participer waat nañ pour bokk ci biir mouvement bi kon loolu yàlla mu ñuy dimbale dañuy wax alhamdulilah léegi ñu ne kon dañ leen def ay ndogu ci biir weeru koor bi commencé liggéey bi parce que liggéey bi bari na trop ci lañ jàppee ñeenti fan ci euh, koor gi muy 4 dimanche dimanche bi njëkk ñu ngi ko defee woon euh, devoir notaire yi géejawaay

Mhm. waaw qui est derrière Aïcha Thiam nag moom mooy macha allah sama jëkkër sama xarit parce que initiative bi yëpp moom moo ko teg waaw ñu waxtaan si ba jubóo ci ñu teg ko te biñ ko tegee tamit maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax baax mooy ñëpp wuyu si nañ ma te ñu ngi ñuy jàppale sama jëkkër moom moo teg projet bi moom nekk fi dafa nekk extérieur léegi biñ ko tegee yàlla suñu borom bi dimbale ñu bi ma wootee ñëpp wuyu si nañ ma vraiment nit ñi nekk nañ ay jàmbaar ta Adama si moom moo nekk jabaru père la moom moo nekk moom moo nekkoon noonu di xale yi daal macha allah ñëpp wuy si nañ ma moom mouvement bi moom dañuy sant yàlla di wax alhamdulilah parce que bi ñu commencé ak léegi pas un mois mais gis ngeen affaire ni mu demee yàlla suñu borom bi mu ngi def xéewal ma koy sante yàlla bu baax baax baax ginnaaw yàlla nag ma koy sante sama borom kër parce que ginnaaw yàlla daal lépp moom la waaw euh, artiste nga avant tout. Mhm. tay sa moromu artiste yi def nga len appel ñu dugg ci mouvement bi. Mhm. wala yaa ngi dem seeti au delà. parce que tamit mhm. Sénégal fi lañ ko fekk. deug la euh bo nekkee ci dara amna ko lu ci supérieur. c'est vrai am na ñoo xam ne nañ la peut-être ci social. artiste yi mag yaa ngi fi. tay est-ce que di nga def ben appel ci ñom caméra bi mu ngi la tiim. dëgg ñu ñëw wuy ci la. deug la wa en fait euh, man instant bi dafa guma appel duggaguñu ci nit ñi parce que affaire bi ñu ko jappé ak légui dafa jàmp trop trop trop. légui ñun amuñu won ben temps bo xamanteni ni dinañ mëna def démarche mais nak yalla moom moom dimbal nañu ba am na yenn nit yoo xamante ne ñu ngi ñuy jàppale mm. wax dëgg yàlla donte bari na bariwul mm. mais ñu ngi ñuy defal quelque participation mm. ma ngi gërëm tamit boulanger yi tamit chaque dog bu jotee boulanger yi ñoom ñëpp dañuy génn jàppale ma am na daal ñu may jàppale mais ñi ci gën a jàpp moom base bi moom mooy ñun waa mouvement si laa bokk ñom ñoo def seen ay cotisation ñi def seen 2000 ñi def seen 10000 ñi def seen 20000 ñi 30000 ñu dajale luñu am yépp dimbalé ko def té yalla rek tax ñun moñu ñu tax a waaw. légui pour adhérer ci mouvement sila la bokk. waaw mouvement sila la bokk ku ci bëgg adhérer da ngay jënd carte de membre bi. moy li ak badge bi. ak kii bi euh, t-shirt bi du mars 2000 francs ngay joxé bo joxé 2000 francs di nga am carte de membre di nga am t-shirt pour nga bok ci biir mouvement bi. Mhm. may fàttali nit ñi tamit ne affaire bi du question du kessé ki bi koor gi kessé mhm. après koor gi amna yenen ak yenen yo xamante dañ ci bokk parce que mouvement bi nee naa leen bëgg nañ ñu dem ba suñuy sët ak sëtaat yëpp bokk ci biir mouvement bi mm. waaw lu lu ñuy yemale fii moom dañ koy continuer Pikine am na ay autorité Guédiawaye am na autorité mm-hmm. Mm-hmm. te avant tout c'est la banlieue parce que mm-hmm. booy def aide sociale tam tam woo ci banlieue dëgg la dëgg la tam woo ci dara da ngay def rek te yàlla tax dëgg la mais tamit ci banlieue bi lañ soqee ko te tamit membre yu bari ci banlieue bi lañ nekk autorité banlieue bi yëpp ñu ngi lay seetaan lan nga leen di wax c'est vrai autorité banlieue bi ñu ngi may seetaan mm. mais base bi ñu ngi ko defee woon fi nga xam ne moo di Guédiawaye parce que mm. man dëgg la Pikine laa juddoo yaroo fa mais Cité Gàddaay lay sëy léegi bi ñu nekkee Gàddaay léegi ñu def foofu base bi Géejawaay te teewul waa Pikine ñu fi waa Parcelles ñu fi Géejawaay ñu ngi fi gis nga mouvement bi France Amérique yëpp ñu ci biir mouvement bi xam ne ñëpp dañ cee xaj moo tax nag ñu ngi man si laa bokk yow si nga bokk yéen ci lañ bokk même président de la république ci biir mouvement bi la bokk uh-huh. parce que defe naa ne social moom ku koy def ñëpp a tax ñuy wax kon damay woo ñëpp ñu ñëw sama numéro ngi moi, 77 677 87 60 Mais pour ñëpp ñëw jàppale mouvement si la boîte parce que affaire bi ñëpp la moom woo nañ ñëpp Sénégal yëpp lañ ci bitim réew ñëpp la ñu woo képp koo xam ne mën nga jàpp ci mouvement si la bokk rek ñu ngi lay woo nga ñëw jàpp si biir mouvement si la bokk

que tamit luy dem la tonton Malick Gakou yéen a ñuy seetaan c'est la banlieue yéen ñëpp ñëw leen ngeen gunge ko en tant que présidente ak waa mouvement ci la bokk bi yéen ñëpp ngeen ñëw gunge ko ndax bu bu ñëpp amee rek xol ñëpp feex waaye li li amul importance mooy nga am tay di bànneexu keneen amul sa xol du feex macha allah Aïcha ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax maa ngi leen di remercier bu baax mm-hmm. en plus di remercier nag ñu nekk ci mouvement bi mm-hmm. parce que boobu ba tey macha allah dañoo sonn ci affaire bi mm-hmm. def nañ ci seen kéntalaay kattan nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu ñoom boo waxee rek ñu ne ñu ñun mouvement bi du yem fii dañu bëgg mouvement bi président de la république génn ci dañu bëgg ay major génn ci dañu bëgg ay député génn ci mouvement bi daal nekkul loo xamante ne nii dañ koo tënk dañ ko décentraliser yaatal ko ba nga xamante ne lu nekk bëgg nañu génn ci biir mouvement bi kon yéen waa Sénégal ñu ngi leen di ñaan yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci biir mouvement si la bokk ñoom daal suñu ko ñëpp ndax lii mouvement ci laa bokk ñëpp ci lañ bokk man ci laa yow ci nga bokk sa cameraman yu ñaawul ci lañ bokk président ci la ministre ci la bokk autorité yëpp yi nga wax nii ñoom ñëpp ci lañ bokk. autorité yi may ñi leen li may wax ci autorité yi may bu nu xaa sax ñuy dem vers vers ñoom. Hmm. est-ce que autorité bu pare pour dimbal nit hmm. bu xaar parce que lii déjà. tas na si dëkk bi hmm. est-ce que comprend ku ne xam na ni bon lu ñuy def xam nga tey boo bëggee dimbal nit bu xaar sax nu ñëw vers yow parce que yéen ñëpp ci ngeen bokk. ok Aïcha mu ngi noonu fii la xewee woon ci Pikine Rue 10 ñu fekk si woon fi Aïcha Faye mu ànd ak waa El Vision Média ci léegi social am bi mu ànd ci waa mouvement ci la ci la bokk comme ni ma leen ko waxee rek El Vision Média moom du tàyyi benn yoon képp ku ko woo ci social rek wala nga woo ko ci weeru koor bi da lay wuy si ñu ñëwoon fii tey fekk si fi Aïcha Thiam di xaaraat nag beneen appel dem feneen ak feneen si El Vision Média rek lay xewee très bientôt ak Awa Ané ci leneen